buubu ah. waaw buubu euh, moo di maanaam ki nga xamante ne bailleur la nekk ak ay nit ci këram ba dem ba gis ne kër gi fi mu toll daal ñu si benn état boo xam ne dëkk fi wóoratu mu génn ba noppi ci lii xew ni ah. bi mm-hmm. muy génn leen génn leen. Mm-hmm. il paraît état bi signal ministère de l'urbanisme signalé woon nañu état de l'eau bi mu toll. ba musiba mu mel nii xew fa léegi responsabilité kan moo engagé état la wala ñu fa dëkk la wala wala ak yéen seen rôle ci lu ci yu mel nii lan la. responsabilité bi c'est partagé d'abord damay commencer wax ni borom kër gi eh, du ma ko dédouané noonu quoi parce que génn na ibaar yi mais bi nga génnee est-ce que def na la jawar génn naa ma bind xam nga tey su bindoon da koy génne yóbbu ko waa urbanisme mbaa mu yóbbu ko waa maire ba ni kër gi de man maa fi dëkkoon ak ay locataire mais wóorutul man na génn naa nee naa leen na génn ñu bañ xam nga yow sa vie soo koy menacé soo doon xaru nan la koy tere loolu xaru la kër gi dafa war a daanu borom kër gi dem na mais génnal soo génnul tey loi am na état am na possibilité ñëw par force génne la parce que toujours ñu fi génne nit parce que fii benn benn weer dong mhm. kon soo waree génne nit pour sauver sa vie ce que doo ci def li nga war a def lépp donc responsabilité bi borom kër gi responsabilité ña fa nekk ba ne responsabilité bu mag bi état laa koy def état moo deful li mu war a def dans un pays normal ici la vie humaine n'est pas sacrée mooy nit dund nit moom la ñu kiiwul la vie humaine n'est pas sacrée donc état moo waroon jël ay matuwaayam fekk leen fa su yóbbu gendarmerie ba police génne leen ñoom ñëpp. Ah, mais bu membre état yooyu ñoom ñooy encaissé ñoom ñoom moom immeuble yooyu. attention mais parce que en plus il faut préciser aussi que il y a deux semaines leen wax loolu. donc ci deux semaines yooyu fii ci Dakar aussi est-ce que mën nga mën nga mën parce que moom yomb na génn mhm. a eu dem na dëkk foofu mais que ils ont eu le temps ci deux semaines yooyu mais da danoo toog ba problème bi toog ba mu neex la ngeen la deux semaines da ngeen di génn ah, te te xoolal suroom suroom beneen dëkk normalement deux semaines yoo nga wax avant les deux six mois avant kër ga barricade na ko kenn du fa dëkk